Euh, asalaamaaleykum mbokk yi ci suñu njëlbeen bala ñuy sori ñu daal di observer benn temps de prière décerné ko un frère qu'on a perdu il y a même pas quatre jours waral ñu reporter li nga xam ne moom lañ jàppoon a def. Euh, nous avons une minute de silence et s'il y a des gens qui peuvent formuler des prières nous avons faire. le bala nous Ben tey nouvelle alliance pour la nation et l'équité donne Ben mouvement boo xam ni ay ndaw ñoo ko tëral ca boppa ñu ma ci lancement officiel antenne bu parce que c'est un mouvement national lancé nañ antenne bu Dakar ma jàpp ni li wolof di wax bañ ci sa wewi tànk munuma am lu ëpp lu suut wala lu féete kaw Tiwaawan tax ma ni man bi nga xam ni moo ma concerné directement ma war ko def étant le secrétaire général national Tiwaawan nga koy defee ñu jàpp ko waroon ko def le 5 ba nekk ci installation yi lépp am ñu bokk ci ñun bàyyi a Dakar di ñëw jaam ak pexeem yàlla ak dogalam accident am am ko ci ñàkk bakkanam ñu daal gàttal lépp lu mu doon def parce que booy ànd ak nit di def mbir mu di laa ci taxaw nekk ci toolu xare boobu ba sama moom ko ci lii yoon mooy nga jox ko cëram ak wàccuwaayam bi mu am ci yow loolu waral nag ñu daal di gàntal li nga xam ni moom la ñu naaloon tey jii ñu ne dañ koy def de manière soft maanaam dañ koy def def boo xam ni bu oyof lay doon Thank you. la coalition de l'honorable député, la coalition CPGE de l'honorable député Demba dont à la tête de cette délégation, M. Abim et ceux qui l'ont accompagné. Ouais, pour reprendre notre cours de discussion, doon gi nu doon doomu Kajoor di doomu dëkk bi lu nu jàpp rek dana nu ko def parce que dogal ci bakkan sans borom moo ko moom saa yoo amee dana nu sàlloo ak li nga xam ni moom la ñu suñu diine may waaye du tere suñu mébét dana nu ko wéyale ndax képp kuy dund sax boo fi jógee da nga fi bàyyi mébét moo tax ñu ne nañ ko def de manière soft bu dul am activité euh, animation yi ci war waaye ñu xamal ni lancé nañ officiellement li nga xamante ni si mooy nouvelle alliance pour la nation et l'équité fii ci goxu Tivaouane te li waral loolu juddu ginnaaw bi nga xam ni sunu réew mi jox nañu euh, adresse jox ñu nationalité jox ñu tur ñu mën ñu situer dama jàpp ni li nga xam ni moom mooy am ci biir réew mi danu ci bok war bok ci ñi diko doxal ginnaw bi nga xamni doon nañu ay doomu rew ñuy ay ndaw amit ay mag ci dëkk bi ñu dëkk cheikh seydi aboubacar daan wax ni radiyallahu taala anhu mbolo gone rek man babacar ñemewuma leen waye mbolo mani kese man babacar ñemewuma leen suñu booloo di suñu xam-xam ci mag ñi ñun ci ndaw ñi di sunu kàttan ngir ñu xool naka la ñuy joyante ci réew mi li ci nekk rawatina ci gox goxaat yi nga xam ne fa la ñuy tàmbale kenn ku nekk li nga xam ni moom mooy sa waar nga nekk ci waaye it mu am tolloole ndax li ñu miin ci politique wu réew mi li ci ëpp mooy benn parti ñoo koy jariñu loolu nag ñu jàpp ni dafa am nasaxal bu nu nasaxal ñun li nga xam ni mooy suñu pas-pas waroon koo doxalee ba tax ñi nga xam ni ñooñu jiite di doxalee noo xam ni waroowul ak li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñi ñu jiital ndax dañ leen faa teg di leen jox sunuy koppar ngir ñu ñuy liggéeyee bu dee nag dafa am parti yoo xam ni ci askan wi la mu war a jot jotuñu ko wala fan leen war a féete féetewuñu ko fa ndax dafa am ñu téye ay loxo ci loolu nag ci la ñu jóg daal koy tëral mu doon un mouvement national ñu lancé antenne bu Dakar waaye yëpp lancé antenne bu Tivaouane ci kaw loolu li tax ma invité woon ñu bare bari ci ñi bokk ci langue politique bu Tivaouane ndax nii Habib Dramé toogee nii sama wet noonu laa doon xaaree Lamina Thiandoum bu cercle des fidèles di ànd ak Abdoulaye Ndiaye Kalbu fii ci sama wet noonu laa doon xaaree Ina Thier di ànd ak Mamadou Diagne Sy Mbengue fii ci sama wet noonu laa doon xaaree Mamadou Sow Mbaye di ànd ak El Hadj Malick Sy noonu laa doon xaaree Massour Dabo di ànd ak Ababacar Niang ñi ñu séq jogante bi ci biir Tivaouane ndaxte ndaw ñi bu nu biralee seen ay kàddu ba nu xam ko ñu xam ni dañuy dem ci jongante waaye demuñu ci xare ak rayante ndax lu cooli bari bari bari pënd bi lu mu jub jub jub bu wàccee biir Tiwaawan la ñuy des am na jëf yoo xam ni dañ koy nemmeeku ci biir réew mi ci yenn gox yi waaye ñun yaroowuñu ko ndax ginnaaw bi nu Tiwaawan juree ba pare daf nu jox diine daf nu jox dundu ñu dëkkandoo ba tax kenn ku nekk nga jàppal sa morom yéene ju rafet ci loolu man joseph salim ndiaye waxtaan naa mën naa ni ak ñi ëpp ci ñi nga xam ni dañuy jongante ngir dëkk bi le te kenn ku nekk am lay wu yel ngir ñun ñii ñu ànd ak yow ndax ku mel ni honorable Demba Diop si jëfam ci Tiwaawan du loo xam ni dafa bàyyi ba militantisme moom dugg si ci biir dëkk bi muy doog di ko def dafa doon ku yàgg di taxawu askanu Tiwaawan ci fànn yu bare bare bare bare bare mënoon naa di énumérer te kon du ñu fi jóg ndax jëfam loo xam ne la boo xoolee gis ko boo ko làmbee daj ko ku mel ni Abdoulaye Ndiaye Gàngu jëfam noonu la ràññeet loo ci dëkk bi du loo xam ni danga koy laajte loo yëg la boo ko xoolee gis ko boo ko làmbee daj ko ñu mel ni Maodo Malick Sy Guèye bi muy accompagner kii nga xam ni mooy El Hadji Malick Diop à la mairie de ci nguurug Abdoulaye Wade jëf yu bare bare bare yu ñu réalisé tey ñoom ñooñu ñoo ko defoon te mu ànd ak mat ak doylu ak expérience tey jii ku mel ni Khalifa Ababacar Niang xam-xamam du lu nuy lu nuy lëmbët te ku doy kilifa doy joñu kilifa gi ba tax mu doon ñoo xam ni dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax

ma bëggoon ñëpp teew ci mooy ku ci nekk sa candidat programme bi nga xam ne am na ko mu jëm ci wàllu ndaw ñi ak ci wàllu jigéen ñi dama bëgg ñu daal di signer convention boo xam ni nouvelle alliance pour la nation et l'équité dana ko téye képp koo xam ni ginnaaw 23 janvier ca guddi yow la ni wiiw nga jël programme boobu daal di koy doxal juróomi programme yii ñuy tëral yi nga xam ni moo ci concerné ndaw ñi ak jigéen ñi ndax Tivaouane war na am loolu ñu naan maison des femmes jigéen ñi dañu war a am seen kër ci biir dëkk bi seetloo loxo yi a defar dëkk bi yépp génn ndax ndaw ñi war a liggéey dëkk bi yépp génn nañ di wuti ci koom-koom te ko waral mooy ñàkkum xëy mu ñu ràññee ci biir dëkk bi bu weesoo dawal Jakarta leneen li fii xëyu ndaw bëriwul bu dee am na fi weesu jënd jaay loolu nag dafa am nu nu jàpp ni noonu lañ koy ñoŋale ba tax ñu ni juróomi candidat yi li kenn ku ne li nga tëgg ci sa programme ak jëme ko ci jigéen ngeen ndaw ñi kii gaye insha allahu rabbi dana nu fexe ba nu tëgg commission boo xam ni programme yooyu yi ci ëpp doole jëm ci ndaw ñi ak jigéen ñi dana nu fexe kii gaye daal di koy rendre ñu def loolu ñu naan rendre compte aux populations maanaam janoog askan bi wan leen ni lan waxoon topp nañu ko ba fii la toll beneen poñ bi nga xam ni bëgg nañu koo doxal dañuy xool tey Tivaouane bu ñu nee mooy cinquième commune du Sénégal ginnaaw bi fi tubaab bi nekkee daal di jàpp ni Dakar Gorée Ndar Tëngéej ñoo ñi nga xam ni ñoo am yar ak teggin ak mënu leen jàppe ni ñoo gën a civilisé ba tax ñu jox leen ñu am statut français ca jamono boobu 1904 suñu commune bi juddu ci dëppoo ak at mi nga xam ni El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh ci la feeñ ci jamono Bon, ba tey ñu doon cinquième commune dem ba Sénégal 557 wala ko la dernière circonscription de Kër Massar dafa yokk commune yi Tivaouane nekk 500 commune ci wàllum defar ak ci wàllum deltu ginnaaw kon xam ngeen ay yoxo yu yu dëkk bi ci liggéey jëm ci infrastructure commune département bi ëpp koom-koom ci la ñu bokk commune mën nañ ni bi ëpp koom-koom Tivaouane la ndax bu ñu xoolee loolu ñu naan responsabilité sociétale de l' entreprise muy RSE ñu institutionnaliser ko maanaam entreprise yi nekk ci biir commune yi dañoo am lu ñu waraloo ak ña nga xam ne ñoo dëkk ca commune yooyu bu ñu ci xoolee bi ci gën a rëy entreprise minière bi gën a rëy Sénégal dañu naan ICS la ba lu cay toftal mooy MDR te kenn ku ci nekk am nga diamètre de voie ferrée buy traverser suñu dëkk bile te kon sa responsabilité euh, sociétale d'entreprise danga ko war a di sentir waaye ñu ñuy xamal ni saa su ne ñoom am nañ nu ñu koy jëfee noo xam ni entre commune bi bu liggéeyee dara ba noppi day ñëw ni leen nangam la ñu jël facture yooyu fay ko weesu nanu foofu ndax bu dee ñoom noonu la ñuy doxalee suñu commune bi dina ci yéex a gis boppam ndax bu yàggul dara hôpital bi feebarul na fi ba manqué compresse te ñu ngi fi te ñoo doon doxal loolu kon dañoo war a wëlbatiwaat koom-koom gi ak këru liggéeyukaay yooyu di dugal ci biir commune bi daal di yóbbu ci fi nga xam ni mooy njariñul ñi dëkk ci dëkk bi tey budget bu Tivaouane commune bi ci xayma dañu naan juróomi téeméeri million la ku ko dégg ni lu rëy la ci ko xamul koom-koom wala ay koppar ni muy doxe waaye bu nu ko jaaralee ci yoon Tivaouane budget war na mën a yegg neuf milliards juróom-ñeenti milliards ndax entreprise yii nekk ci biir dëkk bi ku nekk ci ñoom mën naa jox commune bu Tivaouane at mu jot lu toll ci ñetti milliards gàmmu Tivaouane gii di am opérateur téléphone yi di dugg ci dëkk bi télé yi di ñëw ci dëkk bi di fi amal ay activité di fi jëlee koom-koom bi ko yóbbu dana war a participer ci koom-koomu dëkk bi te ñoom ñooñu tey bu ñu liggéeyee ak ñoom ni nu war a doxal kenn ku nekk ci ñoom mën naa génne milliards télé yi daal di génne ñoom juróomi téeméeri millions médias yu mag yi dugg ci dëkk bi mu dolliku ba tax ñu am budget bu toll ci neuf milliards mën a réaliser nag li nga xamante ni si moom lu ñu bëgg ci dëkk bi kon nag dañu am dayo boo xam ni toll nañu ko ci àddina ci noppi nit ñi waaye ci njeexital ak jariñoo tollaguñu fa moo waral bokk na ci li nga xam ni moo tax mouvement bi tey samp ci biir réew mi waaye it samp ci biir Tiwaawan dafa si yéene doxe noonu ma di ci jokkoo ak ñu bare bare bari Seex Ababacar Si bii nga xam ne fi laa jàngee baam BFM coopération canadienne yi ñoom ñoo ko defar kon coopération bu do bu commune bu Tiwaawan am na bu nu jógee ci loolu donte dañu ko may Sénégal bi waaye turu commune bu Tivaouane mu ngi ci biir coopération ba te bu mu liggéeyee mën nañu ko jaayoo UBIS ce sont les saoudiens ñoo ko réalisé ñoonu ko may kon coopération bi mu ngi fi ba Habib Dramé mii sama wet fii mu jàngee di Maroc la coopération marocaine sénégalaise dafa dem ba ci biir Tivaouane ndax njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ni mu demee ak la la famille de Assane du roi Assane kon Tiwaawoon ay buntam dafa ubbeeku ci kanamu àddina bi waaye dañu mel ni suñu njiit yi fi mës a jaar wala ñi nga xam ni dañu ko bëgg a jël dafa am lu leen ci umb nun nag ci noonu lañu taxawe ngir joyanti ko ba mu jub xocc waaye wommat njariñ ba mu sax ci sunu gox bi ndax sunu rakk yi ak sunu mag yi ak sunu ndey yi sunu soxna yi ak sunu jigéen yi seenub nekkin mën a ñëw loolu lañu ni woon dinañu ñëw woon leen ni mouvement bi lancé nanu ko officiellement te fas yéene nanu ci ànd ak ñépp waaye tamit ah loolu ñuy wax yenn katu xëddeen dañuy yëwoo ñoo ngi yëgoo di diisoo ak ñu bare bare bare bare bari moo tax Habib bi ñuy wax naan le discours final maanaam kàddu gu mujj gu ndawi Tiwaawan ngir dëkk bu féex te yaatu sunu mébét moo doon ñépp teew waaye comme yaa teew teewaaleel bi ñépp je mën nga def la part des choses tey doo fi toogee toogaayu doonte casquette CPJE nga ñëwee waaye une grande partie de la jeunesse et de ton engagement citoyen moom la ñuy xaar li nga xam ne nag mooy d'ordre politique ñu bàyyee bari xam naa ni moom la ñuy xaar surtout les médias sunu engagement politique ñu ko fësal ki nu ci àndal te du bett kenn ndax euh, xaayaan ku dégg séeréer vous êtes des hommes d'information d'après ce que vous avez entendu mën ngeen a am orientation waaye dinañ ko fésal officiellement au mois de janvier date bi dinañ leen ko communiquer def ko daje bu mag woo presse locale waaye woo la presse nationale ndax Habib ak yéen ñi fi teew ñun suñuy dugg duñu duggantu dañu naan sëmbax nekk ca biir li nga xam ni nag moom lañuy def en off ñi ñu ko war a waxal ñoo ngi koy wax ak ñoom loolu moo doon pàcc bi nga xam ni moom lañu jàpp ni moo jëm ci li waral bi taxaw ak li mu bëgg a dox c'est ce qui était prévu en wolof. très proche je dis bien très proche avec une précision de certain leader qui a su marquer l'heure et qui sera notre leader lors de ces élections mais nous nous souhaitons garder ce suspense et travailler comme l'exige la politique en compétition électorale pour pouvoir avoir plus de voix et remporter celle-ci. C'est ce qu'on avait à dire pour, à cette auguste assemblée. S'il y a des questions, nous vous écoutons. S'il n'y en a pas, on peut lever la scène. Vous avez parlé de RSE, vous avez parlé des industries extractives qui sont euh, un peu partout dans la zone. Bon, est-ce que présentement vous avez établi un plan d'action pour euh, exiger à ces entreprises-là de respecter euh, tout ce qui est responsabilité sociétale d'entreprise Nous avons fait plus. Nous sommes allés les voir. Même si la demande a été longue, ils nous ont finalement reçus. Et on a longuement discuté Suite à ça, on a eu à découvrir même comment euh, certaines euh, participations ont été faites. Mais tel ne sera plus le cas, parce que, comme on dit, ce qui n'est pas su par tout le monde peut continuer à exister. Mais aux yeux de tout le monde, ce qui est manifeste doit changer, car l'abnégation de la population tuaonoise, elle est générale, et ceci va s'appliquer aux yeux de tout le monde et que ce changement sera éminent. Et votre option est de jouer un rôle de régulateur et d'éveil de, de conscience. Et est-ce que vous avez euh, planifié quelque chose pour euh, conscientiser la population sur tout ce qui est corruption électorale, vous nous avez, de conscience Vous nous avez offert cette vitrine euh, qui est de d'énumérer ce que nous allons faire par rapport à ceci, c'est comme si vous avez avalé ce qu'on avait prévu de faire. Euh, c'est la raison pour laquelle on avait convoqué les responsables des jeunes, des entités politiques qui concernent la commune de Tuaon pour en faire notre palabre d'agora et de tenir au respect notre fraternité. Parce que ce que nous avons de commun, c'est la cité. Et on ne peut pas le transformer en temple de guerre nous pouvons avoir notre adversité, mais nous ne pouvons pas être dans l'animosité. Tout en sachant que la période de la campagne ainsi que les élections vont passer et nous allons toujours continuer à être des frères. Parce que cette ville nous a donné une naissance, une entité et le rythme des écarts et de Nasser el-Haq nous ont tellement bercés qu'on a le cœur propre, que cet aspect de violence ne pourra pas germer ni exister euh, au sein de Tuawa. Choisir, c'est éliminer. Et euh, selon vous, quel est le meilleur profil pour euh, le futur maire de la ville de al Alhamdulillah. si ce n'est pas moi, ah. oui, ce sera celui que je vais choisir. Ne vous en pas. mais avec quel profil le profil du meilleur gars, celui qui est plus assidu, au chevet des populations de Hongroise. Est-ce que vous pensez que le maire sortant euh, a quelque chose à voir avec euh, votre discours Parce que si je comprends bien, Dieu vous, vous, déclinez un peu son, programme, mais sa démarche par rapport à, à, Vous savez, l'œuvre humaine est imparfaite toujours à chaque fois qu'on constate des limites ou des manquements, où on fait ce constat, c'est juste pour redonner du gaz. Vous m'avez vu, je suis habillé en marron, et c'est la couleur du maire sortant qui vous a dit que je ne vais pas le soutenir. Voilà, donc sachez, madame, que j'ai tout simplement montré en quelque sorte des limites par rapport à, cette, à sa gestion et à son bilan, c'est pour le motiver encore de redoubler d'efforts parce que Duaol n'en a pas encore assez. Et comment jugez-vous son bilan Satisfaisant Moins Je vous en dirai dans une autre station par rapport à une autre vitrine. Mais tout simplement, ce que je peux dire et ce qui est manifeste, c'est qu'il y a des manquements. Et la population l'a senti. Lui-même, il le sait. C'est Babacar Mansour, le chef général, le sait. On l'a vu lui demander d'être présent à chaque fois que de besoin à la famille de chasser des Malik ou à des cérémonies, que le maire soit présent. Donc, ce n'est pas moi seulement qui l'ai constaté. Prenez ceci comme un rappel. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus euh, judicieux de prendre votre responsabilité et euh, d'afficher votre euh, accompagnement ou bien votre choix Calmez votre ferveur de journaliste. Ah, vous êtes communicant comme nous. Hein, Mais bien sûr, c'est pour cela que je vous demande de C'est pour cela que je. vous, Mais bien sûr, tout mouvement, tout mouvement et toute activité véhicule un plan de communication. Ça, c'est sûr par rapport à notre suspense qui sera définitive dans les prochains jours, nous allons organiser notre méga meeting et en ce jour-là, nous allons faire notre ralliement auprès de notre candidat choisi. Vous le saurez, les Sénégalais le sauront. Vous avez rencontré tous les candidats La majeure partie. La majeure partie. Et nous avons longuement échangé. Et je suis sous le charme d'un programme, mais d'un programme que je vais faire part euh, d'une diffusion et de rendre ceci explicite dans les différentes langues, dans les différentes langues, pour que les gens puissent savoir ce que c'est que ce programme et comment ceci sera très très bénéfique les populations. Et quand vous dites euh, une partie, donc cela veut dire que votre démarche n'est pas du tout euh, inclusive, parce que normalement, euh, tous les candidats devaient être consultés. Oui, parce qu'il y a cette rencontre physique et d'autres qui sont virtuels à travers le médium qu'on a, les téléphones, WhatsApp, ce qui nous a permis d'échanger avec les différentes entités. Mais ce qu'on a pu rencontrer physiquement, c'est une partie. Mais d'autres, on les a eus au téléphone et on a longuement discuté des projets concernant et de leur programme. Un message pour les jeunes euh, Le message pour les jeunes, je ne pourrais pas emporter le discours pour les jeunes, sachant que c'est un grand discours que j'avais prévu pour dire euh, le dernier message de la jeunesse, mais je ne serai pas aussi avare à discourir, sachant qu'un responsable d'une entité est si présent, je vais lui laisser l'aimabilité de s'adresser à la jeunesse de manière globale. Et je tire bien le mot à dire de manière globale, pour qu'on ne nous dise pas qu'on était parti faire un meeting en faveur de CPJE. Habib sait de quoi je parle. Au moment venu, ce qui doit se faire se fera. Habib, je vous invite à rejoindre. Voilà. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. wa Tiwaawan maa ngi wa sax je suis Habib Dramé le coordonnateur général de la jeunesse du parti GPGE maa ngi ànd aussi ak sunu kilifa Mbaye Ciss Thiaw Lopez conseil municipal euh, ak Mouhamad Nazir Silla ak Berka Diagne Babacar Diop ak Assane Ndiaye ak Modou Gueye Ndiaye suma xar di am contentement ak mbégte ñëw teewe ci jotaay bi parce que tamit bu ñu waxee xëy na nit ñi dinañ xalaat une coloration politique waaye yaakaar naa ne suñu relation ak suñu frère euh, Joseph Saliou Ndiaye dépassé na clivage politique yëpp parce que du tay démb bi ñuy militer ci monde associatif bi ñuy taxaw d'une manière citoyenne ci waaw yaakaar naa ne politique donc même su àndoon ak beneen candidat

def choix aussi beneen choix damay xar jàpp ne rek choix boobu moom nga jugé ni mooy choix bi gën a judicieux waaye aussi ñun suñu dénominateur commun mooy le développement de Tivaouane d'abord moo ci boobu idéologie laay invité tout képp koo xamante si yaa ngi ci Tivaouane ak foo mën a milité aussi da ngeen xam ni majeure partie ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyu leader politique bi weekend la ñuy ëpp lu fi nekk jour ordinaire après ñun ñooy nekk ci dëkk bi te Tivaouane yaakaar na ci ndawam pour développement dëkkam te li ñu ko mën a may mooy taxawaay bi ñuy am tey parce que dañ ni dañ ni ndawi tey ndawi tey ci taxawaayu ndawi tey ci la ñuy mën a déterminer ëllëgu dëkk

yenn détail Tivaouane soxla na jamono. le futur de Tivaouane matul sax ñu lay xalaate jox suñu dëkk donc euh, mu nekk lu am solo man franchement Joseph m'a vraiment séduit par son discours par son franc-parler par son vraiment courage qu'il a de diriger benn mouvement boo xam vraiment ça doit être international comme ni mu ko waxee taxawoo ko ci Tivaouane donc ñun du ñu am dara luñ ci wax.

ku bëgg dëkk bi parce que dañ nan deuk da koy jox ki ko bëgg vraiment ma science président Demba Diop ci lolo tax ma ànd ak moom c'est limo tax ma ànd ak moom c'est pour le futur de Tivaouane pour le futur de Tivaouane c'est la jeunesse pour le futur de Tivaouane c'est les femmes franchement je suis condamné vraiment li nga wax ken mënu ci tek ba dañuy bañ fété sax ndaxte am na ñu teewul c'est buñu fété

jot a teew ndax temps yombul commettre commencé ko ci presse locale bi teew waaye remercier aussi CPJE ak honorable député Demba Diop Sy remercier and coalition and defa Tivaouane bu A2N Abdoulaye Ndiaye Ngalgou remercier wa Yewwi Askan bi bu Khalifa Babacar Niang remercier PDS Boy Malik Malick remercier Benno Bokk qui bi le maire sortant moo ko yor muy Mamadou Diagne qui est un frère ma koy nuyu de passage di remercier équipe bu Nouvelle Alliance pour la Nation et l'Équité de Tivaouane di ci jiital François Né Pape Matar Ndoye Ablaye Kanté Sen euh, ñu ak ñeneen ñëpp bala ñuy bala ñu may mere ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo coiffé la zone de Tuaon ak ñi ci seen ginnaaw remercier bu mouvement KSN bu kër Cheikh Awa Balla di remercier bu baax Abdel Sibaha di sant Serigne Khalil Mbacké bu Serigne Cheikh Mbacké Dar Rahman di sant ak gërëm Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu Serigne Moustapha Sy Al Maktoum capitaine di gërëm ñi nga xamni téwul ñu fi ñëpp di leen ñaanal sa borom sam leen ñu wat ci kër yi ya ci déllu wat ci liggéey bi ci jamm ñu nit ñu wéyale suñu liggéey ci jamm je peux dire que le plateau de la jeunesse tire à sa fin ci kàddu yi may rotal di leen dig dajé ci weer wi di ñëw ngir fessel nak ki nga xamni mom lañu andal ci élection yi nga xam ni ci lañu jëm te kamay tànn mooy doon le candidat de la victoire au soir du 23 janvier ñu leen di jaajëfal jërë amatul suffrage indirect léegi dafay direct kii jiite tête de liste ba nekk ca kaw dañu naan mooy doon maire bi ñépp xam ko bu jaralee askan nu jox la ko bu nu la wóoluwul ñu jox ko keneen

je pense que cette question a été bien évacuée. Ben, beneen bu ma ciy rek euh, ku wax jeunesse euh, ku wax aussi élection faaw nga wax lu jëm ci wàllu violence gis nañu ni jamono ji ñu nekk même les discours ça commencé à di changer parce que day nekk discours xamé xamante euh, da fay agresser ay xassanté loolu itam naka ngay conscientiser cette jeunesse tuamoise pour que ñu xam seen taxawaay na lu jëm ci walu discours yu mel non xam nga objectif bi ma ngi la koy wax et je l'ai dit tout à l'heure

moo ngi jóg nga wax ko muy discours yi ñuy nemmee ko xastante bi waxante bi lu ñaaw bi olof dafa am lu mu waxta ay olof la wax ju bon deppul fa mu jëm fa mu jógee la ciosan joxoñ mo benn nga jox waye ñet yi yépp ci yow la jëm sa yo ko talalé salol ni li ngay wax ñet yoon mo ngi ci yow nga génne benn ba jox ko do c'est juste ça Voilà. La version française. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons initié le mouvement Nouvelle Alliance pour la Nation et l'Équité, dont l'antenne a été implantée à Dakar et l'antenne de Tuaol devait se faire le dimanche 5 décembre au début de cette euh, manifestation, de l'installation et de la préparation par rapport à l'animation, une mauvaise nouvelle nous est parvenue d'un membre du mouvement qui accompagnait le convoi qui venait de Dakar pour assister à, au lancement officiel. Cette mauvaise nouvelle est l'accident qui a valu la perte de vie d'un militant de première heure, je peux dire les précurseurs de ce mouvement, qui a même eu à rédiger le règlement intérieur ainsi que certains termes de référence, nous ne pouvions pas évacuer cette cérémonie, ce qui nous a valu de le reporter à date issue. Étant un natif du Cayor, tenant compte de ses valeurs, je me suis dit personnellement que s'il y a quoi que ce soit qui doit se faire, même s'il y a la vie qui n'est plus, le programme doit continuer. Ainsi, on s'est dit en interne qu'on va le faire sans animation et le lancer officiellement pour préparer aussi un grand meeting, parce que c'est d'ordre politique, et définir le profil et ce sera le profil gagnant qu'on va choisir et qu'on va accompagner. Parmi les points qui nous ont beaucoup plus intéressés par rapport à l'existence du mouvement, et ceci, cette journée devait porter un regroupement des responsables des jeunes des cinq profils qui concourent pour le fauteuil humain. Alors, nous avons appelé tout le monde et nous avons invité tout le monde, sachant que c'est une journée ouvrable et que, voilà, chacun est dans son, dans son travail, dans le monde professionnel, mais tenant compte de la clôture de cette période préélectorale qu'on va boucler aujourd'hui à minuit, nous ne pouvions pas nous abstenir de le lancer officiellement et de préparer un méga meeting, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour montrer à la Grande Assemblée le candidat que nous avons choisi et que nous allons accompagner. Nous remercions la coalition de CPJE, la coalition CPJE euh, du député, du honorable député Demba qui est venu avec une délégation dont le responsable des jeunes à la tête, Abid Dramé, ainsi qu'une partie euh, du euh, mouvement, la coalition Ande de de Abdoulaye Et nous remercions ceux qui nous ont envoyé leurs notifications faisant savoir qu'ils sont euh, sous l'occupation de leur travail, raison pour laquelle ils ne peuvent pas se dépêcher. M. Lamina Tchandoum m'a informé que ce qui nous avait frappé le 5 l'a frappé aujourd'hui. Il est à un deuil au niveau des HLM. Certainement, c'est un frère. Nous prions pour son repos et que Dieu l'accueille dans son paradis pour cette perte et présentons nos condoléances à notre frère Lamina Tchandoum. Nous avons souhaité ce regroupement des responsables jeunes pour ratifier devant tout le monde et de manière officielle une entente d'idée de respecter la non-violence, qu'il soit verbale comme physique, et de tenir compte des programmes, des projets pour Tuaon que chaque leader a eu à préparer dans son laboratoire, surtout les deux volets, la jeunesse et les femmes pour que si, et c'est ce qui va se passer, un candidat remporte les élections, qu'il met sur place une commission qui sera chargée de regrouper les différents programmes qu'avaient les autres, ses euh, autres adversaires et le mettre en exécution de ces points les plus urgents. Et que chaque année, chaque fin d'année, le mouvement Nouvelle Alliance pour la Nation et l'équité fera face à la presse pour montrer où en sommes-nous de ce programme et de ce projet. De l'autre côté, nous avons énuméré ce qui concerne notre commune, qui est de redresser le budget communal, qui est de 500 millions à 9 milliards, passant par les louages que qui est bénéfique et qui sera bénéficiaire. Nous avons cette institution de gouvernance locale, dénommée RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et nous avons les grandes entreprises minières du Sénégal qui sont dans la commune ou dans le département, mais en, grande partie dans la commune de Tuawa, qui doivent impacter dans le quotidien et sur le plan financier des Tuahua. Nous, on nous a fait savoir qu'il y a une manière qu'on a mise sur place pour que cette euh, responsabilité puisse se faire après chaque réalisation que la mairie fasse il présente des factures que ces derniers vont honorer. Tel ne doit pas être le cas. On voudrait qu'ils verse à la commune de Tuawon des sommes très significatives pour impacter dans la politique locale et nous permettre de faire des réalisations par rapport aux infrastructures. Parce que Sénégal, est en cinquième commune du Sénégal depuis 1904 Aujourd'hui et relégué au second plan. Nous sommes au 500e rang des communes sur le plan des infrastructures, ce qui est inadmissible. Raison pour laquelle nous sommes venus en apport d'idées et de démarches pour que ceci puisse se faire. Nous avons eu des coopérations d'antan dont on ne sent plus la présence, la coopération canadienne-sénégalaise dont tu en a bénéficié. Nous avons la coopération Saoudia-Arabia-Sénégal, en grande partie on et la coopération euh, du pays royaume chérifien, dont abid Dramé a eu à faire ses études supérieures, qui doivent retrouver son éclat dans la commune de Tuawa. Sur ce, nous avons senti un mal profond dans notre commune et des manquements qui ont touché même les parties les plus vulnérables, l'hôpital de Tuawa, le secteur sanitaire et le secteur éducatif. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour lancer officiellement et apporter des points de contribution que nous allons soumettre aux différents leaders. Mais ne soyez pas, gardés euh, gardez votre ferveur journalistique. Nous allons vous communiquer la date, Inch'Allah, de notre lancement de meeting de ralliement auprès de notre leader que nous allons choisir pour l'accompagner à ces élections qui, sont à quelques encablures et faire de notre maximum pour que sa victoire ou la victoire de la coalition soit éclatante au soir du 23. Je pense même que certaines personnes ici et d'autres qui auront la chance de voir votre diffusion vont donner une orientation mais sachez que le mouvement ne s'est pas encore prononcé.